برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجا جخن نينام نام الظلال وفي مستودع حيث يخطف الورق ما البلاد لا بشر أنت ولا مطرة ولا علق مطهر تركب السفير وقد الجمال سندل الورق وردتنا على الخليل مكتدما تجر فيها فلست تحترق تنقل من صالب إلى رحم إذا مدى لم بلا طبق حتى احتوى بيتك المهيمن من عند فلاليا تحتها نطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق ونحن في ذاك بيائل في ونرسل قبل مشاري اللهم إنا نسلك بجاه الممدوح عندك والمعدي أن تعظم حظنا من ذلك النور والضياء وأن إلى سبيل الرشاد يا مصطفى من قبل يا آدم والكون لم تفتح له أخلاقه أيروا مخلوق قدناك بعدما أثنى على خلاقك الخلاق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد الخاتم سبقنا سرعة الأحباب إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق به القائم متى تفداجي بين جبل يلزم سمسائي بي المتوكل ومن كان ومن لا يكون كأحمد نظاما للحق أو نكال المهري أغر عليه من بواد خادم من الله برهان يلوه ويشهد وضم إلى أصل النبي إلى أصله إذا قال في الخمسين منزل ويشهد وشق له بالإسمين يجل له فذو العرش محمود وعلى محمد تهدبي ناقة الماء مرتجلا بالبدر كالبدر جلا ليلة الظلم وفي أطافه أو أسنام التي ما له الله من خير ومن كرم إن رسول نصيب يصدع به مهند يسري في داء مسجد وأبيض يسرق معه بوجهه ثمار اليتامى حسبة للأرامل يلوذ به أولاك من آل هاشم ومن له في نعمة المفرد نعم دامدات النصارى بنبيهم واحكم بما شئت ما أبدي واحتكمي وانسوك إلى ذاته ما شئت من شر ما شئت من عظمه وإن فضل رسول الله ليس يسمع إليه ذات رسالة لم يفتحنا بما طائر قلوبي حس علينا فلم نطق ولم نيل أي الورى فبمناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفهم كشمس تظهر لعينيه من بعد صغيرة وتكل طرف من أمم وكيف ينكر في الدنيا حقيقته قوم نيام تسل لوانه بالحلم وبلغ العلم في أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم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 اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن يسارك ولسان حجتك ووسع مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وطريق شريعتك المقتدر بخيرك لسان عين الوجود وسبب في كل موجود أيان خلقك المتقدم النور بيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا متالاة منك صلاة تضيك وتدي وترضى بها والدنا يا رب العالمين بإسادة من هزهم أقدام فوق الجبال إن لم أكن منهم فلي بحبهم ذريا وبجاههم وبهزهم طيب لنا شهيا واكتب لنا بهريا بل لنا رب سوى سمعت ربي بمهدي شفيعي بالمنطق البديع يا مملي يا طبيعي بمهدي شفيعي بالمنطق البديع يا ربنا صل على خيرنا من على على السماوات العلى بن ربي العلي يا طبيعي بمهدي شفيعي بالمنطق البديع هلا لشهر مولدي شهر الأولى والسندي شهر النبي أحمدي شهر الربيع الأولي ربيعي ربيعي إذ كان كربيعي للعبد وشفيعي بكل خاب مدلي يا ربيعي

بين شهور متوجن مكللين بين أطول بمناتير صغيرة منتقلة بديرة الفاتحي إغلاق الكون الفاتحي من خص به فواتحي وحاز خاد من ملدي بين أطول بمناتير صغيرة بديرة الحاتمي Şerif Nebi Kasimi وفاتح وخاتم واخر وولي بمن أتي سميعه بمنتقل بديعه أولياء أنا بشار الناصري للحق شار الآمري بعرف شار الظاهري بكل واصل اكملي يا بما أتي سميعه بمنتقل بديعه أولياء محمد شار الآدي لمن حي المشالي وقائل المحالي إلى الطريق يا بما أتي أمي يا بأحمر وأسود من حز سبق سندي كمتدان رسلي خيرة ربيعي بمرأتي سريرة منتقل بديعي فوق يا محمد هذا المشاعر الهادي لمن حجي مشاري وقائل صحابي إلى الطريق المزلي دنيا في يا ما في سهل منتقلة بديعة توقيت يا محمد شان سيدي لأحمر وأسود من حاجة سبق سددي يوم اعتدال رسلي يا طريق بمن أتي سديا بمن دخل بديعي أولياء محمد من خطى جوابه القدس من ربي سلطة والشهادتين تقبلي أدواتي بمن أبي سوريا بمن تقيا بديعي أولياء أهلا بشان المصطفى صفة كل مصطفى وخير عبد قد صفى من ملك أو مرسلين يا بديعي بمن أبي سوريا بمن تقيا بديعي يا مشان مصطفى صفوة كل مصطفى وخير عبد قد من ملك ومسلم يا نور بديعي بما أتي شفيعي بمن تنزل بديعي أو خير خلقي شر جميل خلقي شر عظيم خلقي في محكم منزلي بأطوافي بمحتي سفينة بالمنتقلة مدينة أو بها الذي أثاره إله واختاره

علي ابن الهباء بكل نور المطري أدوار بيوني بمن أتي سبيعي بمنتحلة مديني إلينا شرفي ويوم الغر وطيب ذلك سحر ونروف كل جليل أدوار بيوني بمأتي سبيلي بمقتل بديعي أهلا بكل مظهر من خريق الفكر في كرافي البصر إلى مقام العلي سمعت رديعي بمأتي سبيلي بمقتل بديعي أو إلى مرات من عجاب أمنة حين نصب شبابة ثم اقترى بسجدة متيلي يا توربي بمرأتي سميعي بمنطق لا بديعي أبي يا محمد وتدلى النور كما ترى القصر في وحل الكسر بصنم مجدلي يا توربي بمناتين شفيعين منتقلا بديعين أبياء مرادت البحار وجفت النار من أجلي والنار قد طفئت من خجلي أطرابي بما أبي سريعي منتقل بديعي أطبيا وجنون في نكدي برميا برصدي وعزيا مقدي بخير رسلي رميات رقيعي بما أبي سريعي بمنتقل بديعي أطبيا ورنة شيطاني جرى عظيم شاني بنوضح المراني يوم ما بيبري بما في سفيا بمنطق لا بديع أمرنا محمد نزول البالي بأفضل رجالي بأفضل ليالي ببلد يا بأنوار بأعين بمن حكي سفيعي بمن تبلا بديعي أولياء ألم يوم العيد ما مثله من عيدي قد حل بالمولود في محل الزحلي يعني بديعي بمن حكي سفيعي بمن تبلا بديعي أولياء ألم يوم العيد ما مثله من عيدي قد حل بي المولود في معال زعلي يا طارقي بمهدي صغيري بمنطق لا طبيعي حمد يا مؤمن وسابعين ولادا وماتا وسادا من رزق ما أراد إله في الأجل يا في بمهدي صغيري بمنطق لا طبيعي حمد يا بدل المسعير اسمي رمز لما من اسمي من جديد ينجلي يا طوبي بما أتي سميرين من طبل بديرين حمد يا محمد بحمد الأولين والآخرين فكان زايقنا من الكريم المبدلين يا يا طوبي ماتي صغير مطلب لا بديعي نقل يا محمد يوم سنين موزان سنين مبعث السر الكوني مقدمي مبجلي يا دوار بمن أتي سبيلا بمن بخلا بديعا أبني يا محمد بشار العجمي ابن شار الكرمي أكرم بأبد الحرمي موين خير مستوي أدوار بمن أتي سبيلا بمن بخلا بديعا أبني يا محمد المسال أكرم بشار النسيان مولد خير الإنسان قدوة آل إحسان كريم كملين يا ربي بما أتيت سبيل بنطق يوم سارى بشر واستنارى لمن حول فخارا وغفلة من منزلي يا ربي بما أتيت سبيل بنطق البديع أو تمت إلالي في عدة الليالي بزينة المال كجوال المفصل لمرأتي سميعة لمنطق خلافة أقل يا محمد ربيعي بمنحتي شفيعي بالمنطق البديع ابغي يا يا أطرابي يا بمرأتي سرير بمنطق الأبدي أبدي يا محمد يا الجمامي يوما ونيل قربي وفضل حب ربي هو الرضا والأمل يا ربي بمرأتي سرير بمنطق الأبدي أبدي يا محمد بالحسنى والجمال بالحسنى لدى المقر جلسنا مع الرفيق الأفضلي في أطوار ربيعي بما أبي سفيعي المنطق لا بديعي أولياء محمد لنا وليا وناصرا حبيا لا نحتشي غويا بجاي عبدك العلي في أطوار ربيعي بمرحتي سميعي بمنطق لا بديعي عبد الله وسلم إلى علي أفضل الصلاة ما دام كون لنا من أبد بهزلي يا ربي بمرحتي سميعي بمنطق لا بديعي عبد الله وصحبي وزوجي وحزبي وكل آل حبي مع السلامة لكملي دنيا ربيعي بمراتي صفيعي بمنطق الأبديعي أمري يا محمد دنيا ربيعي بمنحتي شفيعي بالمنطق البديعي أمري يا محمد دنيا ربيعي بمن أتي سبيعي بمن تقل بديعي أقل يا محمد يا يا إلى في الناظمية واصلح لقاريا وللي حضر وأمنهم بخفل تيقيمون نوائب دارنا أتاتي كثيرا أجد دعاهم واجب بالذي طلبوا بجاه أحمد ما سابق غيره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما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 يلا ننك خلقتك من اجلي وخلقت الخلق من اجلك يو دفنا لك غير غير سو بوب واي نيب يو يا داف ما دير كون يلا رك مو في نيكون مو في دار نيكوت بو في لب جوغي يلا جوغي مو في ديس تم مو في نيك نيول بيغا خامي لا نك لول كين خموت نياتا جابونو كين خموت نياتا تان لا اك نياتا نياتا مينديف لاج مو دال نيك موم كين ca wéetaay wu rëy woowu ba mu ko soobee pour mu bind ay nit nag mu jël ci nit ki su fekkee dañ koy defar wala leneen loolu matériel boo bëgg defar war ngaa andi matière première boo xam ne moom lañ koy defee boobu dara nekk bi lu jëm yàlla ji rek moo tax mu jël ci leeram gi fàq ci leeram gi def ko muy xaqiqatu muhammadiya xaqiqatu muhammadiya boobu moom lañ tuddee lu nekk pour àgg ca nu ñuy àggee ci mbindeef yi mi ne koy ndax nit ku nekk soo seetee ku ko jur bàyyam nam ku kooka ku jur bàyyam ba ca bàyyi ji mujj kooka fu demet kon kon kon kooku moom ku ko jur lu nekk rek am na sabab am na commencement am na mujj ba mu des jëmmi yàlla ji jëmmi yàlla ji rek ba mu bëggee defar yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa nga xam ne dafa nekkoon ndam ba ndam moom mooy yàlla mu wéet dafa wéet mu bëgg ñu xam ko te xamut te dara nekk fi lu may loolu may moom mu ne ko kuntu kanzan lam araf fa ahbabtu xalqan fa ahbabtu fa xalaqtu xalqan wa bi yaarifuni kuntu kanzan lam araf fa xalaqtuka fa ahbabtu an araf fa xalaqtu xalqan wa bi yaarifuni damaa doon am lam boo xam ne kenn xam ma mu bëgg ñu xam na te lu may xam ko fi ma def la yow ngir nit ñi xam ma ci yow kon ta tëjëli bu ñëk ba nga xam moy feñ ak yalla te ma sa nëbbu dara jiituwu ko te moom te te te te daf jógee mukk àdduna kooku na su fekkee ne bëgg na ñu xam ko kan mo koy xam ci bopam lañ ko xamé motax mu jël yalla mu jël yonent yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam tibbee ko ca leeram gën ko muy yoy muy haqiqatu Muhammadiyya loolu nag tuddee nañ ko nu nekk pour àgg ci jëmm yàlla ji ñii tuddee ko natir ñii tuddee ko xayula ñii tuddee ko malakum karubiya ñii tuddee ko xel mu njëkk mi ñii tudd ko xel mu mu sell mi waaye ñu aarifana billaahi dëgg dëgg dëgg ni ko xamee mooy xaqiqatu muhammad yi xam ne mooy cosaan yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa mu nekk fa mu nekk kenn xamul nu mu doon jaamoo borom kenn xamul nu mu doon sàbbaale borom ba mu soobi yàlla mu bëgg ñu ko wan mu jël daf ta jëli lu mel ni seetu seetu soo gisee sa jàkkaar moom looy gis sa bopp dafa mel ni yow la tudd yow soo waxee mu wax soo yëngatu mu yëngatu loo def mu def ko bi mu ne yonent nag pour yonent mën àgg ci gis mbind ko mi yàlla bind muy dayob taar mat su fekkoon ne yàlla na am melokaan dëgg dëgg dëgg melokaan woowu lay mel mu am ñaq am kersa ci boppam ci may yu yi nga xam moom lañ ko may ñax génn ci moom ba léegi doomu aadama soo amee teraanga soo ko soo ko defee teraanga dafay dafay ñax ñax ko woowu ci lay defaree géej géej géej dem di palpali di yëngatu def ay duus di yëngatu fu yëngu foo fekk géej jikkoom mooy di ñuy yëngatu ndax xaqiqatu Muhammad yooyu boobu nga xam ne dafay jur ngelaw yëngatu booba dafay jur purit pour purit moomu ba ko ngelaw ba ko ngelaw li ëppee dafay wow mu doon suuf suuf soosu am na yoo xam ne ay ogg la yow itam ñuy fenkalante ndax ngelaw loolu ba saxat génn ci ba léegi sax sa jëlee xeer xeer bu dëgër di ko kosante ak moromam comme li ñuy kose alba dana gis mu génne ay ñeelmantal ñu nekk ci àll bi xam nañ loolu ñun bañ nekkee Mauritanie su nekkee ci àll bi waxtu bu ñu bëggee bu ñu bëggee safara du duñu ut almet waaye dañuy ut xeer yow la ñuy calculante mu génn safara loolu génn saxat saxat loolu ci la yàlla bindee asamaan gannaaw bi mu ko soobee nag yooyu mu bind yëpp mu daal di dajale ko daal di ko ndax mu ne doomu aadama la bëgg a defar naka la ko doomu aadama lay defar kon nag bàyyi mu ne kërim su bëggee teral ganam dafay teewaay yi nga xam ne éléments yi nga xam ne moom lañ koy teral yëpp ba pare doon koo oo bu ñëw moo tax yàlla su ko neexoon àddina bi dina nekkal rek mu nekk comme ni mu defee xaqiqat Muhammad yi ni ko nekkale mu nekk te mos bay jógee ndax mu nga soqee ko ci loxoy mos bay jógee ba loolu mu daal jël saxar soosa mu sàmm mu soppi saxar soosa mu def ci alal asamaan juróom-ñaar juróom-ñaar suuf soosa mu def ko suuf juróom-ñaar ba pare bind mbindaa ko ni ci juróom benn fan waaye mu ne su ko neexoon daf naa nekk rek mu nekk waaye dafay jàngal doomu aadama mi nga xam ne dañuy wax ne yéex bu ànd ak tey ci yàlla la jógee waaye yàkkamti moom dafay gaaw a pare gaaw a jeex rek lu koy am rek dafay koy ñàkk moo tax nag mu daal di jàngal doomu aadama ne léppam ci noonu lay commencé di màgg jëm kaw ba ci doom ji doo doom ba ci gone gi gàncax bi ba ci rab yi njanaaw yi lu nekk lu tuuti lay doon di màgg di màgg di màgg ba ba muy àggate àgge ci njolof la mu bind ca booba bis amut waaye bis mooy toftale ba nga yàlla toftaleel rek

loolu tam mooy mu tax muy muy muy bis boo xam ne muy bisi altine ci lañ ci lañ ci lañ ci lañ taamu tukki yonent bi tukki altine wala alxames bu nga xamee ne altine boobu mooy isnayni rek bu njëkk ba mooy biir si bisi dimanche ci la sañ ci àddina bi isnayni ci arab ba léegi sax ñaari rek lañ ko wax talaata ñett rek lañ na ko yàlla taf talewo rek bi si ñaareel ba bi bi mu defee jant bi dafa daganal seen ndox moo tax muy gisab tukki bu ñetteel ba mu daal di defar géej gi neex yi daganal seen naan ndax ndox nit fu mu nekk dund fu mu nekk ndox dana fa nekk wa jaalnaa minal maa'i kulla shay'in hayy ba loolu amee bis bi ca topp bi si ñeenteel ba mu daal di bind jur gi ak yentant yi daganal seen deret daganal tuur seen deret moo tax muy bis boo xam ne ci moom lañ taamu pour tiit deret nampatal ak yu mel ni moom yëpp dañ ko tànn bis bis bisi alal bisi alal bisi alxames mooy bisi ñeenteel ba mu itam mu daal di defar ci ñaari kër waat ci màggaayam mi ne bii ca mu jël jamono dana xaaj àddina bi ñii mu feesal leen ak ay xaritam ñii mu feesal ak ay noonu moo tax muy bisam ñaan bisi àjjuma nag mooy bisi juróomeel ba juróom-benneel ba ci la bind aadama ba mu ko bindee ba ci saas mujj sa mu def xawaa ci wetam mu daal di gis ko buur jóg ci kawam maa koy xaaju ko ndax yàlla dafa waxoon njëkk loolu ne inni jaa'ilun fil ardi xalifatan xal naa def ci kaw suuf xalifa xalifa ñun ci ñun mooy ci mag rek maanaam mbooloo benn fami ki ci mag mooy xalifa su fi jógee ka mag ci famille ba mooy mooy xalifa ndax da kee dafay dem keneen ñëw waaye yàlla xalifa moom ci yàlla daf fay nekk yàlla nekkam xalifa ak moom dafay nekk nekk ak boo xam ne nekkam dafet la waaye ñun mi d'accord yi ñun ñoon ñun la defal loolu ba mu waxee loolu malaaka yi ne ko atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa ndax dafay bind ay minaakol yoo xam ne dañuy tuur deret di moy sa ndëgal ñun malaaka suñ jikko mooy laa yaasuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna ma yumaruun malaaka du lekk du naan du nelaw du def lu may sàbbat borom bañ ko waxee yàlla ne ko inni alamu maa laa taalamu xam naa loo xam ne xamuleen ko mu daal di jël aadama yëkkiwoo ko xam li mu bind yëpp lu nekk ak lu muy jëriñ dajale ko moom malaaka yi ne leen ne leen wax leen ma ëmbi unii bi asmaai haawulaa in kuntum saadiqin wax leen ma tur yi su fekkee ne dëggu ngeen ci wax ñoom ñëwee ko سبحانك تد ليسك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ñun mënuñoo xam lu may loo ñu xamal te lii xamaloo ñu ko bi mu laajee Adama lu mu laaj Adama rek Adama ko moo leen si jootaleen yàlla ñaari yoon rek la ma sa sant su jóot mooy leen xam-xam boobu bàyyi mu ne xam-xam loolu moo ñu mooy woon fooraayu xam-xam ne lépp luy jiitu rek xam-xam moo koy jiitu fekkee di nar naa ëllëg moom sax bind na téere boo xam ne daf ne tas taskiyatul anaam bi anil ilm huwa imaam maa ngi téye nit maa ngi digal nit ñi di leen xamal ne xam-xam moo jiitu ci lu nekk moo tax ne bay ba malaaka xamul loolu aadama xam ko rek mu ne si leen ko ni malaaka fooree ba pare doomu aadama lii lii rek ñu defee ko ban iblis gis boppam ci loolu ba ñëpp su jootee Ben sukkër rek la yàlla Ben bañ sujjóotee sujjóot bu njëkk bi ñii ne ab ben fan la ñii ne ay waxtu la ñii ne semaine la waaye li ci mën daal daal sëgg nañ bañ siggee ñoom ñëpp bañ siggee gis Iblis moom mi ngi ne sàtt taxaw rek ñu sëjja ñu sujjóotaat sujjóot ñaareel kon yàlla santaane bu njëkk ba benn sujjóot bu njëkk ba la waaye foo fekk sujjóot ñaar la bu njëkk bi mooy santaane bu ñaareel bi mooy sant bi ñoom kon luñ mun ñoom ñëpp ñu sant yàlla ndax iblis ne ko man nga defaree ma leer defaree ma kii defaree ma leer kii nga defaree ko ban ma di ko sujjóotal yàlla ne ko danaa la xalab kii dinaa la xalab dàq ci suma yërmaan ndax ñu ne iblis juróom-ñaari serne yonent ci suuf jàmm na fa yàlla ay junne junne at mu daal di dàq ko mu ne ko mu daan ko yi nga xam ne ñoo tax suma liggéey ñu ne ñu doon bëkk néeg yi aljaana ñeent fukki at service yëpp jaar na ci bu nekk liggéey na fa ci bëkk néeg yi yàlla yi léegi nag mu ne ko ñii nga xam ne ñoo yàq ñoo tax nga yàq sama liggéey bii wallaay sama bàyyee ñoom may dem naa leen dana dana danaa leen bund xutaan summa la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an imaanihim wa an shimalihim wala tajidu aksarahum shakirin danaa leen mu ne ko soo ma mayee insini ilaa yawmi yub'athuun mu ne soo ma soo ma fanu gudd ñii nga xam ne ñooy suma noonu danaa leen ñëwee ndeyjoor danaa leen ñëwee càmmooñ danaa leen ñëwee xarfu danaa ñëwee penku bàyyi mu ne ba muy wax loola maam mu ne barab yi juróom-benn la ndeyjoor càmmooñ kaw suuf ak biir ak biti ba nga xamee ne waaye mu neen neen waxee ne ne dana ci suuf dana leen ñëwee ci kaw dana leen ñëwee ci asamaan ci ndeyjoor dana leen ñëwee càmmooñ dana ñëwee ci kanam dana ñëwee ci gannaaw yàlla ne ko bayal mënoo mënoo réeral lu ma ñi lu ma ñi nga xam ne ñoom ñoo ma sopp ñi ma bëgg mënoo leen dara mu ne ba nga xamee ne yàlla wax ne ko ba iblis waxee ne dana ñëwee bor bu nekk fàtte naa wax ci kaw ak ci suuf moo tax waxtu wa doomu aadama di julli su sujjootee dafa ci la gën a jege yàlla aqrabu maa yakunu abdu huwa saajidun lillah su sujjootee yàlla dafa mel ni ko dafa mel yàllaan ci suuf waaye yàlla nekk ci suuf waaye ndax nit ñi itam su ñuy ñaan yàlla di mébét seen mébét yi dañuy tàllal seen loxo ci kaw kon dama ba tey dafa mel ni waaye du caaga yàlla foofu la nekk yàlla amul barab yàlla mi ngi fépp waaye nag foofa noonu iblis amu fa amu amu amu amu amu fa amu fa doole ba ba yàlla defee noonu rek adama yàlla bind ko bind ko ba mu ko bindee fekk xaqiqatu muhammad yee booba ñu doon wax biñ ko yàlla bi ko yàlla bindee ñi tax mu bind ko ñëwaguñ moom moo laqoon fay nëbbu yonent yi di ko dalee ci aadama ba ci isaa ñoom ñëpp nekk seen leer yi ñu ko doon jëlee ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nëbbu bi mu nëbboon moo tax ñoom ñu mën a feeñ ci lañ daan taataane mu ne su bëccëgee nga xool ci asamaan doo gis weer yi weer yi biddiw yi du caaga ne dafaa jóg waaye leer leer gi dafa ñëw ba tolloog moom ngir koo leer moo tax leeraay bi du su jant bi sooyee ba nekk ñoom dañ ko ay takk ndere la ñuy gis noonu la ko mu ne soo taajee boole ndox ci ron làmp da nga gis làmp ba di ca leer waaye du caaga ne waaye ñoom ay jëmmi jëmmi seetu lañ rek luñ gis rek daal di portale ko daal di fane kooku mooy yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ñëw ñu ñëw ci bisa nga xam ne bis bu tedd la ñaari fan yi jiitu ñi ngi ci bis yi awtaar yi nga xam ne moom la ñuy moom la moom ci yi koy séentoo yàlla tànnal yonent bi waaye tànnal nañ ñu itam alhamdulilah moo tax ma ne ñun ñëpp nañ wax alhamdulilahi rabbil alamin ndax yàlla dañoo indil sangi mbindeef yi ki nga xam ne moom la ñëpp doon doon doon doon yaakaar ki nga xam ne yeneen diine ju mës a jóg ci moom lañ ko taataane téeméeri téere ak ñeent jóge nañ ci kaw asamaan ñëw ci mindeer mi mi ci ay yeneen ñu ñëw indi ko mboolem yeneen yi téeméeri junne la ak ñeent fukk ak ñaar al fukk ak waaye ñoom ñëpp ñu ngi doon jëlee ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam làqu gi mu làqu ndax dafa wax ne am na aw nit yoo xam ne bëgg naa leen seede leen ne bëgg naa leen bis bu yàlla jëlee mayam yëpp ba jël keram y ba nit di dégg yuróom gi ni muy baxee mel ni laax buy bax ci cin te dee am ku nekk daw yawma yafirul mar'u min axiihi wa ummihi wa abiihi wa saahibatihi bis boobu bàyyi dafay daw doom jabar di daw jëkkër kenn ku nekk am na loolu li di kulli mu yow mooy lin seetlu ñu wax nii mu ne nag mu ne bis booba yàlla ker gam koy keral moom yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne na ko óor na ñu nga xam ne bëgg na leen dana ko bokk ak ñoom ñu ne ko ba ñooñu xanaa ñoom ñoom ñooy yonent yi mu ne déedéet ñu ne ko xanaa kon mooy wàllu yi ñooy déedéet mu ne xanaa kon ñooñu ñooy ñan ñu ne aw nit lañ doomi aw nit lañ gisuñ ma sax dañ maa dégg rek bëgg ma may itam seeni lay ne bëgg naa leen moo sax mu ne ko moom mu ñëw doon jëmmi yërmaande yërmaande ñooñu loolu la ci séddee xeetu Muhammad ne leen kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yéen yéen gën a xeet yi nga xam ne tànnal naa ko doomu aadama lu tax taamuruna bil maarufi wa tanhawna anil munkari yéen yéen a gën ci nit ñi ba yàlla bindee aadama dafa façon bind yónni yónni fekk na mu bind yónni yàlla Muhammad waaye suñ doon dem ba ci arañaan ma ba yàlla demee ba ci asamaan yi ñeenteel asamaan asamaan yi juróomeel foofa la fekk yonent yàlla Moussa mu ne ko bi mu nuyoo mu ne kàlla jibril ko ànd ak Muhammad yónni nañ ko yónni nañ ko ñoom ñëpp mos werante wuñ ci yónni yàlla Muhammad ndax yàlla mos yónni benn yónni lu muy signé nga contrat ne soo tasee yónni yàlla Muhammad sa mission jeex na da ngay ñëw continuer yónni topp ci yónni yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax nag mu ne ba nga xamee ne yàlla yónni na ko moom ñoom ñoom yónni nañ leen nekk ñoom ay yónni yónni Muhammad lañ moom moo fi moom moo nekkoon ci moom lañ doon tibbee di leer di indi. téere yooyee ñoom ñëpp téere téere yooyu xam ne ñeent lañ kii téeméer lañ ak ñeent di ko dalee ci aadama ba ci yonent yàlla isa waaye ak muy muy muy muy téeméeri téere ak tawréet ak linjiil ak zabóor ak furqaan ñoom ñëpp si leen boole muy téeméer am na yonent yoo xam ne dañoo am na ñoo xam ne dañuy kii jiitu woon li indi woon yàlla daana yónni ci benn jamono sax ñaari yonent kenn fee kenn fee waaye kenn ku ne ci sa jamono rek lañ la yónni même yonent yàlla Isa biñ koy màggal ba di wax ne yàlla la moom ci bani Israël lañ ko yónni waaye yonent yàlla Muhammad ci ñëpp ak fépp ba faw moo taxoon ki nga xam ne mooy mujj ñëw su ñëwee moom ndeke moo ñëkkoon a ñëw ñoom ci moom lañ doon jëwee ñëwee téeméeri junne ak ñeent fu ak ak ñeent téeméer alfaka xadimun téeméeri junni ak ak ak ak ñeent ak ñeent ak ñaar fukki ak ñeent yàlla yónni leen ñu ñëw di andi waaye téere yooyu yëpp dara desit yëpp ay netti rek moo jeex rek bi ci mujj feeñ nga xam ne moom la yonente yàlla Isaa li mu doon andi ki ko bind muy tool muy muy kii Polsis ne nañ Polsis bi muy juddu ak fekk na fàddu yonent yàlla Muhammad juróom fukki at xam nga ne kooku mën nga wax ci yonent yàlla Isa kon bu yàlla yonent yàlla Isa fàddoo ba am juróom fukki at kooku la kooku la ñëw kooku mënu cee wax lu óor wala lu óor ak te ñoom la ñëw ñoom ñoo yàlla weddi ne ne wa maa qataluuhu wa maa salabuuhu walaakin shubbiha lahum fekkoon ne rey ko fekkoon yàlla mas naa ba ma nekkee Égypte mas naa nekk benn kër goo xam ne ñu ko luyoon waaye ñoo ko luyee ay chrétien la ñuy waxtaan ak man na ma yow luy sa diine mais ñun kat dañuy ebal ñu jàng fi jàngee ba xam door ak gëstu diine ndax ñu xam mu dëgg-dëggal mu loolu tax na mu ma mais soo demoon ci kasa ba julli ñi rek nga fay fekk soo demoon ci bistro yi ak yooyu julli ñi rek fekk soo déggee rey nit julli la ne ma ñun ñoo baax ñun ñoo indi jàmm ñoo kii yooyu yëpp fekkoon ne wax naa ko ne julli laa du ma ko ñemee léeg ma laaj ko benn laaj mu ne ma xaaral loolu nag koo ci waaye su ne ñaari fan daal yow indil ma benn téere téere bi ma ko jàng sax dama koy teg rek su ñëwee ma ne bi daf ci dara lu ma xam ne mu ne ma ndox lan ma ne ko ah da ngeen ne yonent yàlla ma xam yonent yàlla Isa doomu yàlla la ñu ne mu mu ne ma waaw ma ne ko waaw yàlla yàlla moom moom mbindeef yëpp te moom mooy cosaani cosaani naka lay amee àddina bi nit ñi sax di am lépp ñaari doom mu am mu am benn rek bu góor amul sax jigéen ba pare nit doom for foree ci biir ci biir baay baayam ci xolli baayam mu mu sàggan ba jaamam yi rek ko mu ne ma ah loolu moom garaaw na waaye loolu seetlu ma ko daal di dem dem ba mu yàgg mu daal yow indi loolu mu ne ma xam nga man nag chrétien laa waaye foruma ci foruma ci biir ci village naa la yónnoo yóbbu ko xëy mën ngaa wax ak moom mu wutal mu audience ak Pape Ba polis Paul Cissé la tuddoon ba kii waaw ci bisal xalilu foofu la nekkoon du Paul Cissé mooy mooy mooy mooy bëccëg rom waaye bii Pape Baba Prolos lañ daan wax mu daal ma mu daal di ñëw di ma di ma waxtaan di waxtaan ne ma yéen sax mu ne ma julli ñi dañoo dof rek waaye ñoom day seen téere bi sax dañ ko jàng rek waaye ñoom yàlla wax na ci yàlla wax na ci moom Euh, mu jur Isa yàlla am na doom ma ne ko ah ko waxee mu ne ma te te yow da ngay wër di gëstu mu ne mbaa ma ne ko ah, am na ci lu ma ci mu ne ma jaaxal mu ne ma yàlla moo wax ci alxuraan ne mu ne yaa mu ne mu ne mu ne innama almasihu isa bi yàlla moo wax ne il masihu mooy isa bnu mariam mu ne waaw mu ne wa kon rasul wa rasulullahi mu ne ma toog mu ne wa kon mu ne wa kalimatu alqaaha ila mariam mu isa kii la nit ak yàlla la ba pare kàddoom la mu ne ma nit yow ak sa kàddu lu leen tàgge lu leen luy seen différence man mi man mi wax wax ji ngay dégg maa ko wax ci man la jógee kon kon isa ci kii la mu ne waaw waaye kon neer boo wa kalimatu alqaaha ila mariama wa ruuxun minhu te ruux bu jógee ci yàlla la mu ne ñun suñ doom yi suñ ruux yi dañ jógee rek léegi nag ci laa xamee ne ci laa xamee ne nekkee diwoon na jullit mooy nga toog rek da jàng di jaa seet li nga xam ne dëgg la rek suñ sëriñ si li wax te ñun amuñ sikki ci ñoom amuñ sikki seen wax ji waaye dangaa war a seet noon bi tam li muy wax ma jaaree fa jël ay téere yu bari benn bis xalifa Cheikh Ahmed Tidiane yàlla yàlla yokk leeram mu ñëw bi ñu seet si si suñu bi mu ñëwee fekk suma bopp lal bi ay téere yu bëri yoo xam ne affaire yi këris këris jërëjëf këris la am naa sax seen téere bi ci arab li xam ne mooy injil injil dañ ne benn téere boobu moo jógee ci issa te ki ko génne ki ko bind digganteem ak Isa juróom fukki at dox nañ mu door ji xam nga kon mën naa am na ci lu ko umb waaw ba loolu amee nag ba mu bindee dem gat ñu kat kastaraat bi am nañu am na am nañu waxtu yoo xam ne ni dajee waxtu wuñ dajee ñoom cardinal yi mën nañoo seet li nga xam ne dëppoo ak diine ji ñu dindi ko ci wala loo xam ne nekku ci ñu def ko ci ba demoon na ab jamono ba cër yi ma doon na fukk ak juróom-ñaar ñu daal di dajee éliminé yëpp ba bis ñeent yoo xam ne mënuñ góor gi kii mën mën mënuñ leen rek ñu ngi ndax xamuñ ban mooy ci dëkk ñu ne ñeent yi ñooy benn bu njëkk ba benn benn ba réeral ba pare police bu kaay mu ne dañoo wax ne ñeent yi ñooy benn ba nga xam ne moo doon cosaan benn la léegi doon ñeent xanaa nit koy sooy histoire war ngaa wax cosaanam doomi diw la doomi diw diw ak diw ak ko waaw mu ne soo demee ci am na am na seen ñeent yi nga xam ne nañ bàyyi ne ñooñu ñoo ci a wér am na bu tudd Marcos am na yu tudd Yohan am na bu tudd am na bu tudd tawee ñoom ñëpp kenn ku nekk mu ne soo seetee téere bi ngay bind di bind cosaani borom téere bi war ngaa wax cosaanam ñu ne waaye benn niroo la ci moom ndey ak bàyyi ne fee bokk ndey ak bàyyi fee man mu neen kon nag ban ba tey ñeent yi ngeen wax ne ñooy dëgg ñu ban moo ciy dëgg kooku mooy suñ sang yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa bi nga xamee ne yàlla kii rek Cheikh yàlla bi ñëwee fekk suñu kër fekk téere yi mu ne ma ah lii de su ne ngeen jàng ngeen ñu jàng ma ne ko déedéet sëñ bi àddina bi doon soppeeku da ngay gis ngay da ngay gis pape boo xam ne dafa mokkal alxuraan comme ni ko jullit mokkale suy jàng su fekkee dafay dafay weeranteeg yow dafa lay wax ci sa téere te mënoo wax ci sa téere moo tax mu ne ma ne ko moo tax il faut nga jàng seen téere yi xam leen moo tax kii boobu ki nga xam ne waa waa indi boobu am am na hmm? ab ab Didaat Ahmad Didaat Ahmad Didaat moom dafa jàng ci téere yi ba nga xam ne moo tax waxtu wu toogee ak ñoom rek daal di ndax dafa mi ngi mi ngi yi ñu ko dominé noonu la lu mu leen wax mu mu mu ñu jàddee Cheikh Diagne bu ñu ba am ñaari fan mu ne ma li ma waxoon ba ba léegi mi ngi sama xel jox ma xaalis ne ma jëndal ma téere yu baax yi kon nag ñun nit lañ yoo xam ne li taxoon yàlla ne mu ne ne ñooy topp bi nga xam ne ñoom ñooy gën ni kuntum xayra ummatin uxrijat li naas yonent yëpp jaar na ci ñoom ñu xam leen su fekkee ne ca Égypte dañ doon feet benn seen feet indépendance ku tudd Mouhamad Ali moo fa nekkoon buur ci mooy fay ci ci Turquie mu daal di toog bu nekk toog muy seet ay ganam nag ñuy ni ñuy lekkee mu taabal ñaa ñe ñeenti ko toog ak ak euh, chrétien ak kii ki nga xam ne moom mooy mooy mooy kii kenn kanisa bi juif mu daal di dem ba romb leen mu dee ak mu dëppaat ne nag jotaay bu tubaranke yéen yéen ñëpp ku ne ku nekk ñi oote ne yaay yaa ne ci dëgg wax leen ma ku ne ci dëgg juge bi ne ko le chrétien bi ñu ko wax ñu ne chrétien bi mu ne la ilimaan julli ñi Mouhamad Abdou ñi ñu ko wax ñu ne ko waxal mu moom julli bi mu ne ko yow buur su fekkee ne chrétien yi danañ dem aljana danañ ñun danañ dem aljana ànd ak ñoom ndax gëm nañ Isaa gëm nañ Moussa ak Moussa su fekkee ne yahud yi ñooy dem aljana danañ ndax gëm nañ Moussa su fekkee ne chrétien dañ dem ñu itam danañ danañ dem nga aljana ànd ak ndax ñun gëm nañ Isa waaye su fekkee jullit ñi jullit ñi ñooy dem aljana yahud dafa dem nasaraan dafa dem ndax gëmuñu yonent yàlla Muhammad mu ne ko kër jullit ngay dem fekk fa Moussa ak Souleymane mboolem tur yonent yi laa nu farriqu bayna ahadin min rusuli yàlla li ñu yaree téere yi ñu jox Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam émo bi ñu indi mooy ne da ngay gëm ñëpp qul amanna billahi wa ma unzila ala ala ala ala ala muhammadin yàlla moo def li nga gëmee yoon yàlla moom ngay gëmee soo laa nu farriqu bayna ahadin min rusul duñ ci duñ leen utale ndax soo gëmee kii gëm ci kon te gëmoo kii kon kon gëmoo te ñoom nag ñoom benn lañ gëm te benn boobu sax ñoom ñu ko teg wéru kon nag dañuy wax alhamdulilah bi nga xam ne moo ñu indil neematul islam l'islam doon yoo xam ne yàlla ci boppam moo wax ci yonent yàlla Muhammad ne ko wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin andiwu ma la lu may nga ñëw indi yërmaane ci kaw ci mboolem nit ñi su ko neexoon mu ne ci ci ci jullit ñi kay waaye ci mboolem nit nag mi naa kon rab yeeg ganaaw yeeg yëpp sax bokk nañ ci yërmaane boobu kon nag kuréel bi ko ci xam ba fonk ko ba ba ba di ci kontaan di ci day lee gàddaay say nelaw joxe sa xaalis daf lu nekk pour màggal yonent yàlla Muhammad sallallahu ma ne kooku mën am lu baax ndax Abu Lahab moo gënoon a bañ ko yàlla yónnee ñetti at yu njëkk yi dañ ne ko ooreet wa anzir ashirataka amee ab gàtt rayale daal di mu ne leen lu ngeen xam ñu man ñu ne ko ñun ñoo leen tuddee lëmeeru kuñ óolu ki rek lañ leen tuddee mu ne leen lu ma leen wax su ma waxoon ne montagne bii ab xale dana ci génnee daal ñëw daal seen ko ngeen wax ñoo koy def ñu gëm ndax moom soo ñoo wax loolu doo dëgg mu ne nag maa ngi di oo ci jaamu benn yàlla bañ yàlla koy bokkaale abula moo njëkk a jox ne ko tëbbat laka ali hada jamaatana lu tax nga noonu ñu ne ñu tasaaroo bàyyi mu ne saar yi deen nag tëbbadee daa yëpp dafa am xul xul wallahu ahad xul amal bi rabbil falaq xul amal bi rabbin naas xul yaa ayyuhal kaafiruuna ndax boobu dañoo dal dañoo dal ba moo tax dañoo dal ci yàlla yàlla wax yonent bi ne ko waxal ne leen yàlla kenn la juru juruñ ko waaye nag bi nga xam ne dañoo dal ci Abu Lahab ni muy bon bon di bàyyi bàyyi la ci yonent bi yàlla am na kersa di ko wax ne ko xasal sa bàyyi moo tax yàlla xasal ko boppam direct ne tabbat yadaa abi lahabin wa tabba maa agna anhu maaluhu wa maa kasab sayasla naaran zaata lahab wa imraatuhu xammaalatal xatab fii jiidihaa xablum min masad xas nga ba xas mu jëmee jabaram ne foo ko fekk baatam baa ngi def ay jiiraan ndax buum yi yi muy taxanee moo koy taxanal la boppam te moom mooy buur ba kon nag yonent yàlla Muhammad moom nga xam ne moo ñëw indi ñu yërmande ji ñu bokk ak ñëpp ñu mën nañoo ànd ak ñëpp waaye ñëpp mënuñu ànd ak ñëpp kon nag yàlla nañu yàlla saxal ci loolu kooku nga xam ne dafa ñëw indi yërmande su fekkoon ne dafa juddoo màkka mu nga juddoo màkka ci amul fii at moom nga xam ne Abraha ci la waxoon ne dafay toj kaaba dañoo waxoon ne dafa gis araab yi di waxtu ne ñuy tëdd naka jekk kaaba gi mi fi ndax ñu tabax bu njëkk ba fa nekk malaaka yee ko tabax aadama bi nga xam mooy bàyyi mbindeef bi mbindeef bi sax dinañ aj na ñeent fukki at ñu ne lu mu doon war ñu ne aadama dafa guddoon ba benn nga attanu te moom itam tabax na kaaba gi xam ñaareel ñu tabax kaaba gi ni ñu ko tabaxee ci suuf soo demee ca baytul maamur noonu la fa noonu noonu noonu noonu la nekkee ni ko nit ñi wëree ci suuf noonu la malaaka yi di wëree ca kaw ya yàlla tabax ko sant malaaka yi ñu tabax ko tabax bu njëkk ba tabax ñaareel bi aadamaa ko tabax tabax ñetteel bi si sa doomam moo ko tabax tabaxam ñeenteel bi mooy yonent yàlla ibrahima moo ko tabax moom la alquran di wax wa iz yarfau ibrahima alqawaida min albayti wa ismail ba mu paree mu ne ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يلا يلا غما نقول لي بابا يا ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك يلا غا في دي دوم دوم دك بي كو خاين في دي اوت سي نيوب وتاخ يون جالا محمد صلى الله عليه وسلم نانا واخني من ماي نيانا عيسى غا واي تام مام من من ماي ماي دلي ماي نيانا عيسى ماي دل دل عيسى غا عيسى دا فو فو ومن بشركم برسول ياتين بعد اسمه احمد yonent bi ki yonent yàlla Ibrahima yonent yàlla Ibrahima itam ne yow yàlla yàlla nga fi indi doom joo xam ne fii la di oto ci yàlla loolu tax démbay tey rek yàlla fam ba booba ba yàlla bindee Aadama ak Hawa aljanna lañ nekkoon moom ñëpp booba suuf amul waaye bi mu indee ci ndigalam fekk dafa gaaral ñun kaw ñoom suuf yëpp ne inna aradna lamanata ala samawati wal ardi wa jibaalu fa abayna an yaxmilnaha واشفقنا منها وحملها الانسان من يا الله دفو منا كوي نلن نلن نلن نلن يوكي نلن ني توك ني توك ديغرام نيم ييب ني باي مو دا دما داف مو دافال خليفه سي كو سوس مو بك ني توك نيم ييب ني كو ادم ادم نك من سو فكه ني سن ديغال ما نين من دا نكو توك مو نكو لا توما ني داغا موي مو نكو موم تياك سو فكه ني يو ما نين

بمي دي دافا لا اله الا الذي امن بي بنو اسرائيل وانا من المسلمين واي دك كن كن دو يالا لوما يالا جيغا خاني مولا بني اسرائيل تا تيو مبوغل ناي كي نك لي داف داف كو دافي جي ديغال موتاخ يالا نانغول كوكو بومو ارانو با يالا يالا ابراهيم مام تا واخنا كاوغا بام كاي تابخ القران كاي نيتلي موك دومم اسماعيل يونتي لي اور واخنا ني am Ibn Abbas bindal na ko juróomi téeméeri ndey ak juróomi téeméeri baay waaye amul ci benn boo benn boo xam ne sëy bu dagal la wala boo xam ne bu bokkaale yàlla la yàlla daf ko tànn jëlee ko ci tànn moo tax mu ne man maay kuñ tànn jëlee ma ci kuñ tànn jëlee ma kuñ tànn mu ne mu ne mu ne man maay maay ki nga xam ne man rek man man maay maay suma ñeete borom maa gën ci doomu aadama yi maa gën a kawee ci doomu aadama yi te loolu suma tiital bàyyi mu ne ma firi ko nu mu ko firee mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ana ana ana xayru bani aadama wala faxra mu ne su nekkee ci mbindaakoon yi jaam rek la moom moo leen gën ñoom ñëpp waaye jaam rek la fa waaye nag su nekkee ci téere yàlla ba boobu boobu moom boobu moom jaam la moo tax mu ne tiitaroowut lim du sangi doomu aadama yi kon yonent boobu nga xam ne ak moom moom mooy maam yi Ibrahima mooy maam Ibrahima moo jur Ismaïla ak Isxaaqa Isxaaqa mooy maam yi mboolem tubaab yi ba kii Isxaaqa ak ak Haarun Isxaaqa Ismaïla Ismaïla mooy maam yi arab yi Isxaaqa mooy maam yi tubaab yi waaye ba nga xamee ne ci kattanal yàlla dem na ba nga xam ne ci kese bu gàtt dem na ba yaayam ak Ismaïla la amoon ñaari jabar Ibrahima dama ñaar ñaari jabar benn jabar bu njëkk bi mooy saarata ba pare nag ba mu demee ci xaaj xaajaram bu ñu nee ñu may ko xaaj mu dem ci buuru buuru misra ba demee buur bi dafa waxoon ne jigéen bi rafet rek ko elloo ñu yëg moom Ibrahima def fiiroon ko ci kees tëj ma leen ci alal ma fay waaye kenn ubbi kees ñu ko il faut ñu muy jigéen ji gën a rafet ñu jël ko yóbbu ko ca buur ba bàyyi mu ne yàlla dafa dafa dafa xottil asamaan dafa xottil yonent yàlla Ibrahima ba ndaw si nekk rek ngi koy gis ndax dafa fii su ko amoon daanu gërëm ba dana dana si ci jabaram moo tax fu mu dem rek ba ñu yóbbu ba jëm bi yëkkati loxoom ba mu koo teg nërmalam ji ne naa ko muy kar kar ñu daal def seen i baax ba mu dellu si waat ba si waat daal di préparé tegaat ko loxoom loolu ñëwaat muy saw boppam di def nekk ba yoon ñetteelu mu ne ko yow xanaa yow njabarkat nga من من دوما جبر من من جبري خل الله متجل نكم تلمت من ما جبري ينتهي على جاي فك من انا عند ملوك قال الجنس ما دكي ما انا خليبي قال يا خليل فك ابراهيم قال جيرو ني تيوي اك نيار سو خن امو دوم تا دوم رك لا بوغول بيم نيوي نكو يالا مسل نما جي بور بي واي ما اوفيرو جامو خن ني غيسنا doom rek ñu am sama am naa juróom-ñeent fukki at mën naa am naa doom kon nga jël kii ndax yàlla mottali ci sa nisas bi ñu ko joxee doom yow ñu jébbal ko ko rek mu daal di biir li mu ji moom moo jur Ismaïla ba Ismaïla demee bay bay bay bay bay waaji fer moom itam mu itam fiir jàpp ko mu itam mu mu mu jël biir moo tax bàyyi mu ne def lu baax amul pertement maanaam dañ ciy am rek daf doomu jabar ji ni mu bëggee jël jëkkëram mu may ko mu may ko xaleem loolu moom la ko yàlla fayee waaye nag bañ demee ba ñoom ñaar ñu toll ci màgg ay ay ay xale yu góor suñ ndax mu mag Haajara rek daal di xorom daal di kii Saara nag xelam daal di daal di mel nag mu ne ko lii daal moo dugg ko si bët yaayam maa la ko may bu nga dimbali kooku ba pare moom amul mooy benn doom mu di ko mu di ko jooyloo mu ne ko du may def mu ne ko génne ko dëkk foo mu foo mu ñëwee mu ne ko yàqam mu war ko ci gënam daal di jël tàndarma ak ndox di dem di dem ba fa kaaba ga nekk ba mu daal di dëpp di dem mu ne mu ne ko foo la wax nga bàyyi ma ci àllab kerte nag bii xam yóbbal jeex su xoolee diggante Safa ak Marwa su xoolee Safa bu mel ni yor waxtaan ndox ba foofa gis na di ndox mu dëppaat xool Marwa fekk ne mu yëg na foofu mu ko defee ba muy juróom-ñaari yoon yàlla yoon di Jibril ne ko gis nga gune kee di mar di mar di ŋaaka ngeen mooy maam yonent yàlla Muhammad bu ko dégg jam Jibril daal di ñëw fëgg mbaggam ci ci tànk yi Ismaayla rek ndox mi daal di ndox mi di bal di bal di bal bañ naan ko zam zam zam zam zam ba léegi loolu moo waral moo waral ñu zam zam ndax dalal dal bàyyi mu ne teel la boo xam ne am na bunt nii waaye màkk yëpp ci géej googu lañ teg la la teg kenn mës a gis fu mu nekk mu nekkee ñoom nag ñu nekk fa maam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne moom moo njëkkee waa fii mu njëkk dëkk màkk Xusay ibnu Kilaab ñoom mbooleem yonent yi ñu mbooleem arab yi yaman lañ dëkkoon alxuraan la ñuy tuddee dafa amoon dëkk boo xam ne dafa amoon développement ba nga xam ne dañuy bay noor nawet moo tax mu gënoon a naat ci àddina bi laqad kaana li saba'i fii masaakinihim aayatun li al-absaar waaye ba seen mbënd moomu daanoo seen kaw kenn ku nekk ci la yaaram jaaree mbooloo mu tasaaroo da doon duñ dajee rek ñu ne tasaaroo nañ lu mel ni ci waa pencam saba ba loolu amee rek moom ñoom Usay ci Kilaab moom moo dawee foofu ba ñëw màkk dëkk ba ba mu fa daal di dem ba màgg ba ba takk fa jabar daal di nekk ba ca ndox moomu ndax ndox moomu bi nga xam ne yaay yi rëbbkat yi dañoo gis picc yoo xam ne fu ndox nekk rek la ñu nekk ñu ngi ñëw ma àll kerte ndeg bi fu fi ñaari pula di doxee foo xam ne ndox amul fa ñu ñëw bu ñu ñëwee fekk géej gi ndax ndax dëndëm ñu ñaan ko mu may leen ñu toog fa daal di ca ñu ñu ñu ñooy kii ñooy ñooy ñooy ñooy yenn arab yi nga xam ne ñu mën fa dëkk ñooñu rek. كسي ابن كلاب من ينجد عبد الشمس أك عبد الدار أك عبد المناف أك نوفل تامية أك نوفل يوم يوم يوم يوم يوم من كي يا رب نبي نان دفع خمنة أم غني جبر مسير تيجي كنا نيو دولا غادي بنتي كنا دبلة موتا عبد الدار يوم نجي فن شاري كارن ينكبر بلغي يوم يوم فنكسر جنا فتح ماك بويرد bañ ali wañaare loxo ci waa yi Ousmane ibnu Talhata fekk dafa egg ca kaw ne di joxe caar yi ali wañaare loxo ma daal nangu caar yi jox ko ñoom ñëpp ko jox jox ma ko jox mu daal di aw ko jox ko mu ne ko du ma ko jël wax ne alxuraan ne inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amaanati ila tey ñoom tes ku ne tes sa sa bàmmeel tëdd ku dee rek ñi dee ko teg suul kon kenn wala ñaar ñu ci ñàkk suul ñu ne waaw loolu loolu mooy dëgg Abdou Moutalib dama lii du ko def man kay damay dem ci li ma nekk ba dee fekk ma ci nañ ma gasal nañ nañ takkal suma gawar biñ takkee gawar gi rek tànk bi daal di sëkk daal di këddaare ndox génn ndox mu sedd boo xam ne kenn ma si gis ndox mu mën seddee noonu ndox ma neexee noonu ci àll boobu ñu naan duy seen i gërëm indi ba kekk seen may leen nañ dem ñu ne ko fan ñu ne ko xanaa ca kii ca baxar ko ñu ne ko yow koy bi att na boppam ki la may ndox mii mën a may sëmsëm mu gasaat mu delluwaat mu daal di dem di sërëm kooku ne wallahi su ma amoon fukki doom yoo xam ne su ma mel ne ñu wër ma li nga xam ne su ma borom moo ma ko sant du ma ko du du kenn kenn ma ci fata boobu bu njëkk ca jigéen yu njëkkee nit daana am ay doom sant yàlla rey ci kenn boo taxaw sax yonentu yàlla Ibrahima ba mu demee ba bëgg doomam ji nga xam ne daf koy a am ba mu toll ci fukki at ak ñeent yàlla daal yëg kii wal ko ne rek mu ñëwee yow too yaa bu ne inni araa fil manaami inni asbahuka fanzur maaza taraa yow sama doom damaa gis ci nelaw sama borom sant ma ne naa la rey noo ko gisee mu ne ko yaa abati fa'al maa tu'mar satajidunii inshaa Allahu mina saabiriin defal li leen sa borom fekk da fekk may bokk ci muñaankoor yi loolu waaye ñoom ñoom ñoom Quraysh nag bi ñëwee ba mu demee nag yàlla yónni Jibril mu indi benn xar moo xam ne Haabil ak Qaabil kenn ñoo ko reyoon kenn jotee ko moroom ko ca Baytul Maamur di ko yaree foofu Jibril indi xar moomu fekk moom ma ngay dem ca jëbal ñoom ci jë jëbal kii Safa fañ doon tuuree seen dayoo pour pour pour ñu rey ko. jibril daal ñëw téye ci loxoom indiwaale paaka ne ko sa borom bu rey xar bu rey sa doom bi nga rey moo tax lislaam la jiitoon ci diine yu njëkk yëpp la ci xam ne sa diine yàlla daf ko fee te baax na ci di daf ko fee bàyyi moo tax kaa aj ak tabaski aj ci yonent yàlla la jógee tabaski ci yonent yàlla ismaïla yonent yàlla ibrahima la jógee ba yu njëkk yëpp boo ko boole ak lu mujj ne te moo fi nekk te téere bi yàlla wax ne inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun maa ko benn nit koo xam ne soo bindee turam sax mënu koo ne jël li gën a naqari Quraysh mu da ngay wedd ne téere leen alquran bi bu leen mënul mënu ko sax waaye indi leen fukki aaya ci aaya alquran mu ne leen loolu de mun leen waaye am leen ñetti aaya mu mel ni aaya alquran wa in lam tafaalu wa lan tafaalu waaye mu ne xam màkk nga xam ne moom mooy capital yi fasaaxa ak balaa ñoom ñëpp ca suuf ko ak dañ daan dajee comme ni ñu def ci coupe du monde ñu seet ki nga xam ne kenn leen lu nekk ci jël sa champion ñu bind ko ci téere ba def ko ci kaaba ba ba déwén foofu xam ne ñoom làmmiñ rek mu doon seen moo tax yàlla yónni yónni yónni yëpp ku ne def laa yónni ci la xewoon te sa jamono yonent yàlla Moussa dañ ko yónnoon bis lañ jabar rek lañ ñu ko joxoon su ko sànnee tegee mu su ko téyee mu ne et et bi moo daan sàmm moo def ko daan ebal muy sàmm Moussa sàmm lool waaye sàmm bi yomb na trop su xëyee jëf jëf yóbbu njëkk yor jur gi ba ko mu ne doon làmp ci teen mu di yees doon goj mu ne mu ne mu ne moo tax ñu ëndi ko ñu ëndi ko mooy gis loolu benn yonent yàlla Isaa dafa fekkoon feebar rek moo fa nekkoon boobu docteur rek mooy seen kéemtaan moo taxoon yàlla may ko mooy gis boo xam ne ku feebar sax ku gumba su la raayee gis sa mbay gis ku dee sax ci kàttan yàlla soo leen soo leen jógal nga jóg yonent yàlla moo xam ne tam ñu ëndi ko ci ñi nga xam ne ñoo gën a fasaa làmbi mu leen ñetti aaya bu leen ko innaa ataynaaka al-kawsar ci saar yi ñëpp gën a gàtt ci Alxuraan mu leen lu mel ni innaa ataynaaka rek mën leen ko loolu mooy wane dem yonent bi yonent bi dëgg la yéen ndokkeel di dañ doon di mos rek di ci barkeelu gannaaw at bu jotoon dañu def ko weer wi ñëw tolloog at bi tolloog weeru koor tolloog juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey ci bisi awtaar yi nga xam ne yonent def ne iltamisuuhaa fi ashri awaaxir min Sha'baan min Ramadaan mu ne fii taasi'atin tabtaa fii saabi'atin tabtaa fii xaamisatin tabtaa weer mu ne mu ne weeru weeru laylatul xadar la benn guddi la boo xam ne xayrun min alfi shahr bàyyi mu ne wax yu bëri na waaye bu bëgg a am bénéfice weeru koor biñ ne weer feeñ ne bu seen tàppale tey la laylatul xadar weer bi mënta guddi bu passé ñaar fukki at ñaar fan ak juróom-ñaar juróom-ñett wala ñaar fan ak juróom-ñett néew na lu ñu ma tey fanweer léegi nag soo xanaa ne bu gisee kon bis boobu dana ñëw juróom-ñett fan fan juróom junney weer di nga xam ne wax nañ ne leetul xadar moo ko gën waaye mu ne su ko taaraloon ci ay at mooy juróom-ñett fukki at ak ñeent ak ay fan nga am ko loolu yàlla may ñu ko ci weer wi ba pare nag mën nañu ci fukki ci mujj ji nga xam ne tey tey lañ toog mu tolloog bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñuy séntu loolu boole muy leer ci kaw leer ba pare yàlla def ñu ñun ñuy jullit jullit yoo xam ne yàlla suñu symbole mooy lislaam mooy jàmm ku gis sa morom da nga ko war a jàmm jàmm nga mën a jàmm rek fàttali la jàmm bi àddina bi demee ba amul dara lu ñuy xasee yonent bi xanaa ñu xasee ko sax benn ci baax baaxam yi nga xam ne ñu ngi ci sikk waaye waaye li gën a baax moom lañ ko xasee lislaam ne mooy terrorisme maa ngi seetaan benn benn benn vidéo boo xam ne kii kii la Trump dafa taxaw di wax ni kenn ni allahu akbar rek mu tëb waaw dañoo dem ba temps dañoo wane ne lislaam dafa raggu lislaam deret la lislaam tuur deret la waaye loolu loolu lislaam ñoo koy def waaye lislaam yàlla ko sàmm ndax mësu ko boole kenn mësu ko dégg kenn moom moo ko amee boppam innaa nahnu nazzalnaa zikra wa bi mu amee ñaari weer ci biir la bàyyam dee mu am ñeenti at yaayam dee ñu jox ko maamam mu am juróom-ñetti at maamam dee yor ko Abu Taalib bàyyi bàyyi taxam mu yar ko ci këram bi mu ko yaree li mu koy bëgg bëgg mën defee ba dugg ci diine islam su duggoon ci diine islam sax ñu ne boo ko dimbale ci waxyu bi wala boo ko dimbale ci kii dañ ne lu nekk bàyyi def ne kenn gërëm Abu Abu Taalib su soxla su fekkoon ne jullit la moo xam ne wallahi lan yasiru ilayka bi jam'ihim hatta uwassala fi turaabi dafiinu mu ne mu mu mu ne bu ko mën a bàyyi mukk la àddina fekk dañ kenn nga téye ko te jox ñu moom bi nga xam ne dafay dooral suñu yàlla yi mu ne ah man daal ma joxe sama doom ko mais yéen mën ngeen seen doom ma yàlla du ma ko def loolu wane na ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi lislaam dafa tumuraanke ci mujj yi dem dafay tumuraanke ndax ñooy lislaam lépp lu ñuy as lu lislaam waaye alhamdulilah lii ñeel yàlla mooy yàlla saxal bi ci diine bi ko yonent ñëwee indi ko juddoo ci Makka jugee ci kii xolam Abu Taalib am ñeent fukki at mës génn Makka lu may di amee fukki at ak ñaar doon nañ ko booleeg benn bàyyi taxam muy dem laata boobu nga xam ne dafa jàngoon téye ñeneen ku gën a ku mel ni kenn du ko génn ñoom ñëpp xam nañ ko suñ xamee ne bokkul ci yow danañ des mënuñoo fa nga ko wax yàlla waaye dañ ko sore mu dëppaat bi mu amee ñu ñëw ci Màkka bi mu amee ñeent fukki at mosut a tukki ñoom xamal nañ ko ñoo ñoo ko tuddee woon Lamine bi nga xamee ne nekk nañ seen biir bi ko yàlla yónnee def na ko otel sa sa ansir achien rek bi na sa jege ñaar ñetti at mu yor ko ñu bañ mu ne ko fas bi maa tamar waaye daal di mushrikeen kon nag boole ñëpp ku la sot màkk dëkk lu wala su ñëwee ku mu boole daal di jéem naa convaincre ba nga bëggee jur kii. di ut ay xarit ñu toog ci gaaw bu ñëw ñu ne ay demal seen kii suñ mbokk la yaram neex demal seen maanaam lu leen ba tey yàlla mu ne ko bisab weeru koor weeru ko bis yi samedi wala dimanche bi nga xam ne yéen doon màggal tànnalu ko bisi àjji moom nga xam ne bi moom lañ doon màggal waaye daf ko tànnal ñu boo xam ne ci bis yooyu yëpp bañ ko tànnalee ci la gërëm muy altine kon nag weer wi juddu yonent bi dafa tolloo ci avril ñaar fukki avril kon nag ba pare leen at bi tolloo weeru koor muy leer ci kaw leer yal na leen yàlla dimbale yal yàlla jàppale xanaa ñu dañ ci leen barkeel rek waaye ba yonent bi ñu mel ni yonent ba muy rañaan ba mu demee ba Sidratul Muntaha muy dem Jibril ne ko man fii laa mën a yem mu a ànd sa xarit ci tukki mu mel ni mu tiisee nii ba fii nga di ko bàyyi mu yàlla mu ne bàyyi mu ne yàlla mu ne doomu aadama lu mu màgg màgg dana bachare yu dana si moom bu bëgg wér ci xolam yàlla déggal ko baati Omar ak baati Aboubacar mu ne ah ni gis ma gars yi gis nañ ma fii daal di ñëwee ñu mu ne ko bàyyi ne sa gars yi kay mu ne seen xel nañu lii waaye may dem bi ma ñëwee fekk fii mu xam ne bi sell yi ñi nga xam ne ku ci wax rek bàyyee wax ku ci def rek bàyyee def ñu nekk mu ñëw moom itam indi jëmbi yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo dem bi fi jógee xaw nañoo wiir ay góor yàlla yu bëri feeñ waaye ngir bañ ca tool tànn te ba mu ñu gënal te tax mu gënal ñu mooy li ko bàyyi tànn muy Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu mu ñëw andil ñu ko alquran théorique rek la dañ ko bind yonent bi nga xam ne mën nañu ko ci moom sax mënta jàng su ko ne dañ ko amale ci jàng kon ku jàng rek da nga nga sànq waaye ñu andi ko yonent bi dundam bi yëpp juróom fukki at ak la juróom juróom benn juróom fukki at ak ñett juróom benn fukki at ak ñett moom la dund ñaar fukki at ak ñett yi ñu yónni yëpp sharia bi suy dox sharia bi suy lu mu wax sharia lu mu santaane sharia lu mu def ci kanam mu noppi sax sharia loolu ñu ngi koy yërëmaane la boo xam ne ñi jàngul arab dañuy xamee ne ni yoonu doon jaar jaare waaye man maa ngi fàttaliku ci Mawlana Cheikh Laye su xëyaan suba ba ngoon soo nekkee ak moom lu muy wax ak lu muy jëf ba ci li muy lekkee ba ci li muy tëddee ba ci li muy jëflanteeg nii lu mu ci def wala ak li muy wax su soo jëlee wax ji soo ko defee arab rek benn mu nga xadis wala mu nga alquran kay kon ba Cheikh Ahmad Tidiane ba ba ba yonentu demee fekkee wu Cheikh Ahmad Tidiane ñëw fekkee wu Cheikh Ahmad Tidiane dara la ci suñu wàll na africain la waaye nag ci jëm ci ci ci ñetteeli feeñ bi moo daana Cheikh Ibrahima daal di ñëw moom itam indi li ñuy dund yoon bi pratiqué ko juróom-ñaar fukki at ak juróom yoo xam ne ñu koy def di ko gis ba moo tax am na benn chauffeur mu am na chauffeur yi Ibrahima Mahmoud Diop yal na yàlla yokk leeram jàng dara waaye daf ko dawal rek dafa dafa am na moom ci ak gàmm mu ñëw ci commandement am gàmm rek mu ñëw dégg ñu waa waa ji di wax di wax beneen mbëtt ma mbëtt ma mbëtt ma mu testa la ci testa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne dafa ànd ak ay saabam jox mu dégg kàddu mu dégg mu dégg mu dégg mu ne mu ne mbëtt bi yonent di gis ne wax ne yàlla yónni na ma mu gis sàmm koo xam ne dafa rey mbëtt def ay doj yëpp gémmiñ nga mu génnee ci rendeekaay ba mu wékk ko suba ba mbo bu ngoon ba mboob yonent ni ko oo naa la ci yàlla mu daal di génne mbëtt mi teg ko ne fee mbëtt mi uyu la du la uyu yonent bi ne ko su ma yore mu ne ko su ma yore moo yore yaa dëpp mu ne ko na ko man may kan mu ko nag su bi waaye balaa ah, bëtt bi ci ci fa yàlla si bàyyi ma nga xam ne kon maanaam mës si jaar-jaar yu yonent bi ñi jàngul sax xam moo tax gàmm mu jafe ci fii Sénégal ndax bàyyi def ko ne moom xam ne ñii mi déglu nii ñi ngi amee wax ñu gën a jot gën a mat ba xamee ci laam yi Cheikh al Islam la seen téléphone yi ñu euh, suñ bëggoon gàmm bu bàyyi dégg ko ci moom ko nan ko doon waxee kon nag su ngeen ñu ooyee ni xanaa da ñuy da ngeen ñuy testé rek di ñu ñu ñu war fàttali suñu war a garab ñu itam soo mënta def yëpp kay dañ def sa lu tuuti tuuti maa ngi leen di gërëm di leen ñaanal yàlla ñuy yàlla nañ bokk ci ñi bénéfice leenatul xadar yàlla nañ bokk ci ñi nga xam ne dañuy dañuy dañuy dañuy bokk ci ñi nga xam ne ñooy takkati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak di ak fokk ñu topp di gërëm bàyyi tere yàlla ñu yàlla boole ci ku nekk Mawlana Cheikh Amadou Tidiane yàlla nañ yàlla indi yërmande yàlla su ko neexee safara safara mën naa indi jàmm mën naa indi ay ndax léegi su ko nit tayoon ci boobu léegi mu nag ko waaye lekk yi lekk yi dem ba tey safara koy taal waaye yonent bi dem noonu la mel kon nag suñ ñëwee fii yàlla booleel ñu yooyu yëpp ñu ko nekk fii di fàttaliku koo xam ne toog rek ñu oole ci yàlla nga oy si yàlla rek may ngi xajul fii àddina ak àllaaxira yàlla na yàlla yokk caay la maa ngi gërëm li moo tax ma ne di ma ñëwee loolu doon wax léegi ci rañaan bi yonent bi mu ne su ma su ma nekkee suma gars yi gis nañ ma fii mu ne bàyyi ah ñu ngi koy seen kan lañu foofu sax ak gane ñëw waaye bu ñëwee fekk suma mbokk yu tedd yi ah, naa léegi Cheikh Baye Baye maa ngi ah, xam ne boo Aboubacar Aboubacar loolu taxaw ah, man kay man dina ñeme naa su fekkee wax rek bàyyi.

soxla na ñett ñaareel soxla na ñetteel soxla na ñeenteel ñi nga xam ne nag mooy doomi Sayda Roqee bi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Ibrahim tey ci kaw suuf ndax ci mboolem njabooti Baay moo ci mag yàlla yàlla yokk leeram fii ñi ngi gis jëmm yooyu ñu xam ne ay yi dégg ci écran ak bëtin ak kumpanti ak euh, Trump ñooñu ñëpp sen ay nit ci sen am waaye ñun ay ne dafa dafay Amérique li tax mu jóg di Ukraine parce que dama jàpp ne moom moom moom mooy xut bi nga xam ne moo ci àdduna bi def mooy dindi lu def kenn ko tere lu de kenn ko bañ léegi nag soviet yi doole ñu mel noonu waaye dafa ci deuxième guerre mondiale mu dem ba gis ne la bëgg doole moo tax ñun xeex bi amul ci dara ñu provoqué suñu njëriñ xanaa di ñu tiital lu mel nii ba mu amee Libya ba mu amee Irak ba mu amee ba mu amee euh, ci ci dëkk yi arab yi africain yi ngelaw na ci ñu indi ay avion indi ay sàtt combat ñoo tàj waaw lu tax bi Poutine defee nii ñoom ba léegi ñëwuñ tege ci wetam xam nañ ne kooku nawle la waaye ñoom seen nawleen bi yëpp ci àddina bi ngelaw tax si wu zaman man tey da jaaw damay yëdu cher

Wa ay bay ay bay bay bay la nekk ca Misra dañ ko mayee juróom fukki fukki billet juróom après ñun bu dem jox la ñaar bu ñu ñëwee gisuñ dara am ku tudd Abdourazak waa Gaana la mu daal di dem ca magistrat à la région islamée daal di jooy ne ñetti doomam am fay di ndax boobu xale yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci médinatu boos ñaari la ñu ne dañ koy boole ndax ñetti nit xaj ndax ñu am fu ñu dem ñi ngi joxoon bourse yi faale wuñu sax dañ ab deux ans daal ñëw ñu daal di ooju ba ñëwee ñu ne ku ci doomi baay fekk mën nga ak sëñ Mamoun ak ñoom Assane ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne ñii mu bind leen am ba seen fekk ñu ngi ànd ak Cheikh Lab Niang am na yàlla yokk yaram bàyyi ko yar moo ko jàngal muy Modou Gorom bàyyi na ci suñ jarbaat bi moom itam fekk moom moom ci ambassade bi mu ne lii su ngeen ko defee kon danañ am problème ndax parce que ñoom fukki nit ak juróom ñoom ñu jox ci ñetti nit dañ dañ leen jox yëpp rek ba bàyyi ñëwee nag gannaaw ñaari at ñu ko ndeket sa fukki bourse juróom yi nga mayoon dafa ay waa Sénégal yoo xam ne dañoo ñëw ne doomi bàyyi dañu jox leen bàyyi ne waaw ba ceele leen bourse ñooñu su may doom lañ mu ne ko man Ibrahima laa tudd Ibrahima ci arab mooy abul rahiim bàyyi bi waaye ci Sénégal itam yooyu noonu noonu yéen ci bourse bàyyi yooyu lañ jàngee ba am seen licence ñëw fii di ndax xamuñ ñëpp ci dars bi lañ leen ci ci bourse bàyyi lañ jàng ngeen dellu ak yiw yàlla bay ñu barke weer koor te di leen dañ gën a bëggante dañ gën a jàppante ñun duñ am suñ ko weccee kuñ ko weccee rek perte moo tax ku ne nañ ko téye bu laax ak loxo après jàpp kon nag yàlla na leen yàlla dimbale yéen ñi ci capital bi yéenay représenté kenn ku ne ambassadeur Cheikh kenn ku ne ni yëg ne mooy ambassadeur yi Baye ci zahir ak kenn nit mënu koo mënu koo ko représenté ñun ñëpp suñ dajee sax mënuñ ko jeexal